إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع أنبياء عليهم الصلاة والسلام mbokk yi <coughs> ginnaaw bu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka ñu ngi ñaanal sunu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi yal na ko yàlla doole xéewal te musal ko ñu ngi ànd ak yéen ci istuwaaru yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ñu ngi war a tàmbalee tey istuwaaru yonent bi njëkk ki yàlla yónni te mooy aadama alayhi salaam ولنبدأ بقصة الأول الأنبياء والمرسلين آدم عليه السلام يقول سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وتبدأ القصة قبل خلق آدم في حوار سماوي عظيم بين الرب سبحانه والملائكة عليهم السلام وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون mbokk yi ñu ngi tàmbalee istuwaaru yonent bi yàlla yónni bi njëkk ci mbindeef yi te mooy aadama aadama lu muy tekki mooy adimul ard ku njëkk ci suuf si suuf si adama moo fi njëkk moom la yàlla njëkk a defar moo tax ñu tuddee ko aadam balaa istuwaaru aadam am na benn waxtaan ngeen koy woowee jalok bu am diggante borom bi subhanahu wa taala ak malaaka yi waxtaan woowu borom bi tabaraka wa taala moo ci doon wax malaaka yi ne man yàlla tabaraka wa taala dama bëgg sàkk am mbindéef moo xam ne dana remplacer ci suuf ñu fi nekkoon di moy lu tax borom bi sàkk ko wàcce ko ci kaw suuf mu wuutu ñeneen ñu fi nekkoon mooy pour dundal suuf si borom bi wax ko ci ayat alquran mu ne yow muhammad alayhi salaatu wasalaam na nga fàttali jaami yàlla yi wa iz qaala rabbuka lil malaa'ika wazkur ya muhammad linnaas hiina qaala rabbuka lil malaa'ika inni jaa'ilun fil ardi qawman yaxlufu ba'duhum ba'dan li imaratiha yow muhammad alayhi salaatu wasalaam na nga fàttali jaami yàlla yi fàttali mbindeef yi fàttali nit ñi ne borom bi tabaraka wa taala moo fas yéene sàkk ci suuf ay nit yoo xam ne dinañ fi wuutu seeni moroom pour lan pour dundal suuf si léeg nga jàng ci histoire am na ci rabu àll yoo xam ne existé tul léeg nga jàng ci histoire ay rab yoo xam ne amatuñ ci kaw suuf dinosaure ak lan ndax loolu rek la du jeex lan moo tax yooyu jeex mooy dañu bëriwul woon ba pare sëyuñu doomu aadama lan moo tax yàlla def mu des ci kaw suuf mooy day takk soxna di am doom bu deewee doom ji màgg ginnaawam takk soxna loolu mooy dundal suuf bi ay imaratiha mooy dundal suuf suuf li koy dundal mooy mbindee fi yàlla bindi di fi des mais lu fi desatul rek doomu aadama sax bu fekkee da ngay dégg ndeysaan bu faatoo ñu ne ndax takkoon na soxna ñu ne déedéet moom de takkul soxna ndeysaan moom de kenn la woon tundum rek wala jigéen ñu ne ndax wala bàyyi na doom maanaam loolu mooy tekki ne ku dee bàyyi doom des nga fi ku dee bàyyoo fi doom yow jeex nga yàlla nag tabaraka wa taala doomu aadama wàcce ko ci kaw suuf pour mu dundal suuf si bi waxtaan woowu amee diggante borom bi tabaraka wa ak mbindeef yooyu ñu noon ñu naan almalaika ci tafsiru ibnu kasir dafa ne ay qawman yaxlufu baaduhum baada qarnan baada qarnin wa jiilan baada jiil mbindeef yoo xam ne dañ fi wuutu seeni moroom génération par génération génération bu dem am génération bu ñëw su ngeen xoolee ñun am na ñu ñu jiitu ci sunuy mag fii rek ñu bañ demee ñun ñoo ñëw ñun léegi ñu dem am ñeneen ñu fi ñëw su fekkoon na ñun bu ñu demee keneen du ñëw mooy suuf day jeex mais ñun bu ñu demee ñeneen ñëw déjà ñooñu di ñu remplacer juddu nañ ba pare juddu nañ ba pare mbokk yi. génération par génération waaye siècle par siècle siècle bu dem am ñeneen ñu bees ñu ñëw waxtaan wi bi mu amee diggante borom bi tabaraka wa taala ak malaayika yi ba borom bi waxee loolu ñoom malaaka yi am na lu ñu tont qaalu atajalu fiha man yufsidu fiha yow yàlla da nga def ci kaw suuf ku koy yàq xam ngeen yàlla bëggul ko yàq suuf wax na ci ay aay yu dul jeex wala tufsidu fil ard baada islaaha bu leen yàq suuf ginnaaw bu ko yàlla defaree suuf nag li koy yàq léeg bu ñuy wax ak xale yi yàq suuf ñoom dañuy jàpp ne mooy jël suuf si di ko jàll wala ak yeneen yu demee noonu yoo xam ne ñoom seen xel foofu la tool wala lenn ci ñun sax ci ay mag bu ñu nee suuf si lu ko yàq dañuy jàpp ne mooy sotti ci mbalit sotti ci salte sotti ci ay foos ay dem àll ba loolu mooy yàq suuf ñenn ñi seen xel foofu lay toll waaye yàlla tabaaraka wa taala moom fa muy waxee ëpp na foofu mooy yàlla mooy yàq kaw suuf mooy yàlla mooy yàlla xam ngeen bàkkaar bàkkaar day yàq suuf loolu la yàlla namm ci bu leen yàq kaw suuf bu leen fi def ay bakkaar malaaka yi ne yàlla ndax danga nga fi def ñoo xam ne buñ ñëwee suuf si dañ koy yàq lu tax parce que am na ñu fi nekkoon yàq yàlla yoon ni malaaka yi malaaka yi xeex ak ñoom ba génne leen fi léegi nag yàlla ne day defaraat ñeneen day defaraat keneen indiwaat ko ci kaw suuf ñoom malaaka yi foofu lañ waxee waa jooju ñoom malaaka yi sax yëmuñ ci ne waa ji day yàq waaye dañu ne dafay tuur deret te ñoom malaaka yi ñoom nee nañ ñu ngi sàbbal yàlla guddi ak bëccëg ñu ngi màggal borom bi tabaraka wa taala fii aussi am na beneen groupe fi soo amee ñaari doom walla nga am ñaar ñu lay liggéeyal nga woo ñoom ñaari ñëw nga ni diw dama laa bëgg yónni kenn ki ne moo ku yembaree kii ki nga xam ne maa ko gën a gaaw moom lan la bëgg ki wax loolu lan la bëgg nga yónni ko moom maanaam malaaka yi ba ñu accuser Adama ne day yàq day tuur deret yamuñu foofu ba pare ñu ne yàlla wa nahnu nusabbihu bi hamdika wa nuqaddisu lak ñun de ñun ñu ngi lay sàbbal guddeeg bë bëccëg ñu ngi lay bàkk ñu ngi lay kañ ñu ngi lay sant ñu ngi lay màggal léegi lu ñu bëgg a wax kon ñoom nañ leen wàccee waaye borom bi ne leen inni aalamu maa laa taalamuun man yàlla xam naa lu ngeen xamul mbokk yi kayfa arafat almalaika ann adam wa zurriyatahu sa yufsiduuna fi l ard wa yusfiku dima qaalu hada ala wajhi al ictirad maa qaalu hada ala wajhi al ictirad wa innama qaaluha ala wajihil istis istifsar mu ne malaaka yi naka la xamee ne aadama ak njabootam dañu yàq ci kaw suuf dañ fay tur deret malaaka yi waxuñu loolu ngir gàllankoor loolu yàlla bëgg a def la ga waxuñu pour loolu pour gàllankoor de gàllankoor de mais dañ koo wax pour am lu leen yàlla leeral lu tax ñuy bindu mbindeef moomu lan moo ko tax a jóg fii mu jëm lu mu fi ut si lan la fi def si dañu laaj yàlla dañu wax loolu ngir lan ngir ñu firil leen ko ala wajihil istifsar wa xasaw an yakunu qassaru fi ibadatillahi azza wa jal ñoom malaaka yi dañoo ragal ne ñoom dañoo wàññi ci li ñuy def dafa am luñ ci wàññi ba yàlla tabaraka wa taala bëgg mbind beneen mbindeef mu leen wuutu def exact li yàlla bëgg ñoom dañoo yaakaar ne ñoom dafa am lu ñu wàññi misaal rek tey boo jëloon benn waaye di ko liggéey la ba caag nga woo ko ne ko bon man daal bëgg naa jël keneen ndax gis naa ne xëy na mu jàppale la lu muy wax day yëg ne ah ma de xanaa li ñu ma santoon defuma ko normalement ni ma ko war a defee parce que su ma ko waroon ni ma ko war a defe kon kenn du jël keneen moo tax ñoom loolu lañu ñuy yëg moo tax fa araadu an yasalu hal nahnu qassarna hatta araadat an yaxluqa xalqan gayrana xanaa ñun dañoo wàññi li ñu yàlla waxoon dañ cee taxawul guddi ak bëccëg ba yàlla di bind mbeneen mbindeef liza qaalu wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak moo tax ñu wax ne ñun ñu ngi lay sàbbaal ñu ngi lay màggal guddi ak bëccëg waaye baleen leen yàlla xamalee ne man xam naa lu ngeen xamul ñoom malaaka yi am nañ beneen gis-gis foofu la ñu d'accord ñoom ci seen bopp ñu daal wax ne la yaxluqu rabbuna ma yasha falan yaxluqu xalqan illa kunna akrama ala allahi minhum wa alam yàlla di même su bindoon meneen mbindeef mu wàcc ko ci kaw suuf même su indi woon keneen fii ñun malaaka yi ñooy gën a tedd mbindeef moomu ñun malaaka yi ñoo koy gën a xam ñoo koy gën a màgg ah. kon ñoom am na lu ñu fas mooy ku yàlla mën a indi fii ku mu mën a doon ñoom malaaka yi ñoo lay gën a tedd ñoom malaaka yi ñoo lay raw ñoom malaaka yi ñoo lay gën a xam bi loolu amee wa lamma arada allah an yaxluqa aadam amara bi turbatin min al ardi fa rufiat ilayhi ba yàlla nammee amal aadama comme wax na leen wax ji ba pare dafa digle ñu indil ko suuf ci goxi suuf yi juróom continent yépp fu ñu nekk nañ ko fi indil suuf borom bi tabaraka wa taala yónni na malaayika mu indil ko ci gox yépp fi continent yi nekk fu nekk mu tibbal ko fa ab dànk suuf ñëw am na ñu ne <clears throat> ba malaaka bi ne cëpp ne day tibb suuf si dafa jooy ne ko bul bind ci man bul tibb ci man bind loo xam ne su demee bu ko yàlla bindee daf koy moy malaaka boobu daal di delluwaat beneen ñëw ñëw suuf si daal di koy wax loolu malaaka bi faalewul suuf si daal di tibb mais wax jooju nekkul wax ju dëgër yàlla daal malaaka bi mu yónni ndax malaaka laa yaasuna allaha ma amarahum wa yafaluuna maa yumaruun malaaka du may yàlla malaaka bu yàlla yónni i mu ñëwee dafa tibb suuf yóbbul yàlla tabaraka wa taala ci suuf soosu la yàlla bind ci loxoom bu barkeel bu màgg loolu moo tax moom yeneen ñëw na ci hadis yonent bi sallallahu alayhi wa wa sallam mu ne ci hadis boo xam ne imam ahmad solo na ko tirmisi ak ibnu hibban ak ñeneen ñu dul ñoom ñu ne borom bi tabaraka wa taala ba muy bind yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla tabaraka wa taala xalaqa adam min qabdatin qabadaha min jamiil ard yàlla tabaraka wa taala bind na aadam ci suuf soo xam ne moom yàlla tibbulu na ko ci suuf si ci mbooleem peggu suuf yi kon aadama ñu ngi ko defaree ñu ngi ko bindee ah ci suuf lañ bind aadam borom bi wax nañ sax ne ci alquran min ha naa xalaqnaakum kon ñi naan cosaanu doomu aadama golo la woon doomu aadama golo la woon après mu sëgg bari kawar tàngoor wi moo wàññi kawar gi évolution moo tax doomu aadama dem dem ba jub xocc gen gi daal di dagg loolu nekkul lu moom la ñuy jàngal sunu mbokk yi ci université yi naan leen doomu aadama golo la woon ñu jàpp ay doomu jullit li leen jàngal doomu aadama golo la te yàlla ne nit maa ko bind ci suuf yàlla wax ci alquran ne maa bind nit ci suuf nit kooku jullit boobu ñu jël ko jàngal ko ne loolu yàlla wax amul de nit cosaanam golo la ñu jàngal loolu ay nit ñu gëm ko di ci théorie di ci di ko di ko développer di ko défendre ay idées yooyu nit jullit day gëm ne doomu aadama cosaanam lan la doomu aadama cosaanam suuf la barakallahu fiik suuf la du golo képp ku gëm ne doomu aadama cosaanam golo nga yow yéeféer nga lu tax yéeféer nga mooy danga ngaa weddi waxu yàlla da ngaa weddi alquran alquran ak sunna dañu ne doomu aadama suuf lañ ko bindee bi suuf soo su ñëwee borom bi tabaraka moo ko bind ci ay loxoom mu ne wa jaa banu aadam ala qadrati l ard doomu aadama ñu ko bindee ci suuf wa hakaza badul xalq nee na lii mooy cosaanu mbind mooy lan mooy ci suuf lañ bind doomu aadama ci suuf soo xam ne borom bi moo ko wax ne man yàlla maa ko bind ci sama loxo wax na ko sax ci alquran mu ne li ma xalaqtu bi yadi loo xam ne maa ko bind ci sama loxo kon doomu aadama màggaay bu mu màgg yàlla moo ko bind ci ay loxoom yàlla moo ko defar moo ko móol loolu doomu aadama ku màgg leneen lu yàlla defar yépp day wax kun fayakun mu daan nekk amma doomu aadama yàlla moo ko móol ci ay loxoom mu defar ko mu nekk benn timsaal xam ngeen timsaan benn estati bu ñu defar bu am bopp am dënn am loxo am biir am tànk tëdd loolu lañ ko defaree borom bi tabaraka wa taala mu wax ci alquran walaqad xalaqna al insana min salsalin min xamain masnun man yàlla ma bind doomu aadama wa laqad xalaqna al insaana man yàlla ma bind nit ci lan min salsaal salsaal mooy lan mooy ban bu wow min xama ban bu ñuul masnuun musawar suwarul insaan dañ koo formé melukaanu doomu aadama kon lan la woon suuf bu jaxasoog ban bu ñuul bu am xet di xeeñ ban bu xonq bu ñuul bu tooy waaye yàlla bi mu ko bindee def ko weer ba soo ko fëggee nga dégg muy def keleng leng leng loolu mooy salsaal keng keng keng keng boo ko fëggee nga dégg muy koŋ-koŋ loolu yàlla bindee doomu aadama ban bu tooy xepp ñu formil ko melokaanu doomu aadama yaqulu jalla wa ala wa laqad xalaqnaakum thumma sawarnaakum man yàlla maa leen bind waaye nii ngeen mel man yàlla man maa leen ko def formil bii nii ngeen mel kees gi nii ngeen mel nii doomu aadama mel bopp bi nekk ci kaw bëri nekk ci kaw mu am nopp am bakkan am gémmiñ am baat am dënn biir loxo yi samp ci tànk yi nii doomu aadama mel melokaan bi man yàlla maa ko def kenn def man man yàlla maa ko def wala dafa ko def dafa am ko def allah subhanahu wa taala moo tax bu doomu aadama weddee yàlla yàlla woo ne ko yaa ayyuhal insaan ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك يا أيها الإنسان إيه يو فاتكت بي ndeysaan doomu aadama dafa gaaw fàtte maa garraka bi rabbikal karim lan moo la jay ba nga bàyyi sa borom bu tedd bi sa borom bu màgg bi lan moo la jay lan nga gis lan moo fees sa bët ba nga bàyyi sa borom ban borom mu ne alladi xalaqaka borom bi la bind kon nit ku ko bind kon ñi ne nit ci golo la jóge lan lañ leen di tont ñu ne nit ci golo lañ jóge lan lañ leen di tont ñu ne leen du dëgg nit ci suuf la bàyyeekoo yàlla nee na maa ko bind alladi xalaqak fa sawaaka bi mu ko bindee pare da koo tollale dara ëppul ci moom lépp a tolloo sa ñaari nopp yi ñoo tolloo wala dañoo ëppante ñaari nopp yi dañoo tolloo wala dañoo ëppante ah wallaay dëgg dëgg wallaay mën nañ leen tontu ñu ne golo yi nekk fi instant bi lu ñuy xaar pour mel ni nun wallaay dëgg la aha ah. ah, ah. ba demaat ba rakkaat leneen barakallahu fiik beneen beneen beneen théorie ñëw na mooy luy évoluer day dem rek du taxaw lu tax doomu aadama évoluer wul nekk soppeeku nekk leneen nekk ñay wala mu nekk bukki gis nga kon loolu théorie la yoo xam ne dajjeeku na bu yàgg loolu ab jullit waru ko gëm doomu aadama yàlla moo ko bind moo ko defar ci ay loxoom gis nga mu ne yàlla moo la bind lépp tolloo bët yi bakkan yi gémmiñ gi loxo yi tànk yi ba ci baaraam yi yàlla ne lépp laa tollale fa sawaak fa addalak may yemale ko encore yemale ko waaye mu ne fii ay suuratin ci melokaan bi ko neex fii ay suura ci melokaan macha ah bu ko neex moom yàlla rakabaka la la formé melokaan bi ko neex moom yàlla moo tànn ni doomu aadama nii la mel nii nii yàlla mu ne ko nii ngay mel terminé bu yàlla ne nii ngeen mel nag da ngay ñuul kukk nekk négro africain nga ni man damay nekk tubaab tooñ nga de changer sa bopp mu jaral la lu nekk ah yaa ngi indi problème kon borom bi tabaraka wa mu ne man yàlla maa leen bind walaqad xalaq walaqad xalaqnaakum summa sawarnaakum man yàlla maa bind mais maa leen formé nii ngeen mel mbokk yi loolu nag kañ la woon wa kaana zalika fi axiri saatin min saati aljumaa min ayaami llahi azza wa jalla loolu ma nga am ci ngoon ci benn ci ngooni aljuma yi ci bisu yàlla tabaraka wa taala bisu yàlla ak sunuy bis nag du benn inna yawman inda rabbik ka alf sanatin mimma ta'uddun inna yawman inda rabbik ka alf sanatin mimma ta'uddun benn bis ci yàlla mooy sunu junni at benn bis ci yàlla foofu am na benn mbir mu ndaw ñun sunuy bis lan moo mën a lan moo tax ñu xam ne tey bis la tey am nañ benn fan lu tax ñu mën a xam loolu jant day xëy so ñu ne tey benn fan ci yàlla nag jant amu léegi bu fekkee ci yàlla junni ak benn sunu ci yàlla junni at yàlla mooy sunu junni at mooy benn fan ci yàlla hmm? sunu junni at mooy benn fan ci yàlla ki am fii téeméeri at ñaata at la am ci yàlla. Hmm? amagulay moo tax alxuraan mu ne am ni ay nit dañuy dee ñu fekk leen ci bàmmeel ne leen dekk leen ñu dekk ñu ne leen yéen ñaata at ngeen fi am ñenn ñi daani tontu naan ne lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha ñenn ñi ne ñun saxuñu fi illa ashiya lu dul benn ngoon aw duhaha wala benn yoor yoor man da yoor yoor laa am dee fekk waa ji am na fi téeméeri at ñenn ñi naan in labisna illa yawman aw baada yawm moo tax yonent bi ne àdduna amul valeur su àdduna amoon valeur yéeféer du fi naan lu toll ne guuxu ndox moo tax yonent bi ba ñu bañ ko fekkee mu tëdd Omar fekk na yonent bi mu ngi tëdd ci benn basan bu tudd tagar xam ngeen tagar tagar mooy la mooy yooyu ñuy lem nga xam ne dafa wow koŋ yonent bi tëdd ci bi Omar ñëw yonent bi jóg di ko nuyu Omar mu ngi seen faaru yonent bi mu ngi dereetal ndeysaan Omar mu ne yonent ba ma dem ci kër saxaaba yi ma woo ku nekk indi mbàjj ñu dajaleel la ko nga am lu nooy nga ciy tëdd lan la yonent bi tontu Omar maa lii wali dunia man lu ma booleeg àdduna maa lii man lu ma booleeg àdduna àdduna yàggul mu ne maa ana illa ka raakibin istazalla tahta sajara summa qaama fa tarakaha maa ngi mel ne benn waaye bu doon dox ba sonn daal di seen benn keru départu garab gu féex ma ñëw toog noppalu après soo jógee nooy def kooku jóg kooku doxoon ba sonn seen keppaar ñëw toog ci keppaar gi bu noppaloo ba pare nu muy def buy dem day yóbbaale garab gi day yóbbaale keppaar gi yonent bi nee na noonu laa mel pour di tourner xelu jullit ñi pour ñu bañ a topp àdduna àdduna yàggul àdduna yàggul ba yonent bi nee bu ko fi kenn dajaleel sax mat la bu nooy pour mu tëdd pour mu tëdd ci maali wali xam nga yonent bi wax Omar yaa allah tarda lahum dunia wala na al axira omar mënoon nangu yéeféer yi moom àdduna ñun ñu moom alaxira ñun ñu moom alaxira yi borom bi tabaraka wa bind na aadama ci ajjuma ci ngoon suñ demee ci alquran yàlla mu ngi wax wal asr ci tàkkusaan googu la yàlla bind aadama yonent yàlla muhammad nee na xayru yowmin talaat fihi sams yowmul jumaa bis bi gën a baax ci bis yi mooy bis bu ajjuma ci la yàlla bind aadama ci la ko dugal aljana ci la ko génnee yonent bi nee na yowmal xiyaam du jot lu dul bisub ajjuma kon aadama yàlla nga ko bind aljuma ci ngoon yàlla dugal ko aljanna ci la ko yàlla génnee waaye borom bi tabaraka wa taala bi mu defaree aadama noonu aadama tëdd nekk suuf nekk ban bu tooy ba mu wow koŋ yàlla bàyyi na ko fa mu tëdd fa makasa arbaina la sax na fa ñeent fukki guddi ndeysaan iblis da daan ñëw gis ko noonu mu tëddee iblis ñëw doo di ko kenken yi di ko fëgg mu koŋ-koŋ waaye du yem ci loolu biñ ko xoolee moom aadama ñu gis ne daa am biir Iblis xool ko ba ci yàgg mu ne am yambara ngi nii malaaka yi ne ko lu tax mu ne ku am xiif ku ne ku am ku am biir ku ne xiif dalay def te boo xiifee yambare kii li ko yàlla sant du dem gis nga doomu aadama fu mu ku sonn rek lu la sonal sa biir saa yoo nangoo lenn ñu teg la ko la moo tax nga nangu ko sa biir lenn waaye day ñëw ne la lii laa bëgg nga liggéeyal ma nga ni waaw mu ne temps laa ci mën nga ni ko doo yor mu ne mënuma ko soo nee nga def soo munuma jël keneen nga dem bay dem xalaat ah daal di tourné lu war a lool sa biir biir rek moo ñu sonal biir biir ku dugg safara ku ne soo moytul biir moo la dugal biir rek moo ñu sonal biir kii sonal nanu moo tax doon jaamu yàlla moo tax doo lekk lu dagan loo gis rek raata la daal di jël mbokk yi iblis danaan ñëw di dugg ci gémmiñu aadama da génn ci suufam foofu mu tëdd waaye danaan wax ne sax kii de bu ma yàlla xiirtalee ci moom danaa ko daaneel bu ma yàlla xiirtalee ci moom dinaa ko sonal borom bi tabaraka wa taala bu mu ci dugal ruux foofu aadama tëdd ñëw na ci alquran borom bi wax ko mu ne fa ida sawaytuhu wa nafaxtu fihi min ruuhi faqaw lahu sajidin lii ma bind muy mbindeef mi saa yu ma neexee man yàlla ba mu soob ba ma dugal ci sama ruu ma ëf ko ci ah yéen malaaka yi na ngeen rot pour sujjootal ko bi wax na ci beneen aaya di wane ni mu bindee isa noonu bindee aadam mu ne inna masala isa ka inda inda allahi ka masali aadam xalaqahu min turab summa qaala lahu kun fa yakun borom bi dinaa joxe misaal misaal ci Isa doomu mariyam su leen yéemee Adama moo gën a doy waar lan moo tax Adama moo gën a doy waar Isa lu tax kuy tontu yëkkati sa loxo lan moo tax Adama moo gën a doy waar Isa lu tax Adama moo gën a doy waar Isa ah ndax aadama amul ndey amul baay isa am na yaay isa am na fu mu bàyyee ko amma aadam bàyyookul fenn moom yàllaa ko bind ne ko kun fayee kun mu daan nekk aadam amma isa nag am na yaay kon kooku kay aadama moo ko gën a doy waar moo tax yàlla mu ne inna masala isa inda allah ka masali aadam xalaqahu min turab summa qaala lahu kun fayakun yemul ci loolu de mu ne alxaqu min rabbik fala takunanna min al mumtarin dëgg sa boroom la bàyyeekoo ko bul déglu ñii li ñuy wax daañ isa yàllaay bàyyam bul déglu loolu dëgg moom boo ko bëggee sa borom lay bàyyeekoo kon li la yàlla wax ngay gëm mooy da koo bind dafa bind isa na mu bindee aadama alayhi salaam mbokk yi ñëw na ci hadis yonent yàlla muhammad alayhi salaatu mu ne lamma nafaxa fihi ruux wa daxala ruux fi raasi fa atish aadama bi ko yàlla bindee ba dugal ci ruu ruu bi bu mu yeggee ci bopp bi aadama dafa tis suuli fa qaalat almalaika qul alhamdulillah malaaka yi ne ko aadama waxal alhamdulillah gis ngeen loolu mooy sunna sax ci jullit soo tis soolee nga wax alhamdulillah ñu ne la lan yarhamukallah yahud yi dañ daan jéem a ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di tissooli tissoolilu pour yonent bi ne leen yal na leen yàlla yërëm waaye bu ñëwee ñu ne tissoo yonent bi ne yahdikumullah yal na leen yàlla jubal yal na leen yàlla jubal gis du leen wax yarhamukallah dañ ne yal na leen yàlla jubal su julli tissoolee nag ñu ne ko yarhamukallah yal na la yàlla jubal aadama bi mu tissoolee malaaka yi ne ko waxal alhamdulillah mu daal di wax loolu fa qaala alhamdulillah fa qaala allahu rahimaka rabbuk aadama yal na la yàlla yi sa borom yërëm fa lamma daxala ruux fi aynay wa nazara ila thimaari aljanna bada yata'ammal fi simaaril janna bi ruugi rombee bopp bi tuuti daal di dugg ci bët yi aadama commencé xool mu daal gis firi wi aljanna mu commencé xool direct fir wi yi fa lamma ruux ila jawfihi ba ruugi ci biir bi nag ishtaha ila taami mu daal di xiif mu bëgg a lekk xelam aju ci lekk bi mu bëgg a lekk ndeysaan fa wasaba qabla an tabluga ruux ila rijlayhi mu daal di tëb ruubaan ci biir bi rek mu daal di bëgg a lekk mu tëb fekk ruugi eggagul ci tànk yi bëgg dem ne day jëli yi fir wi ñu ne ko yàkkamti nga de yow Adama yàkkamti nga de ma tax bi tabaraka wa taala mu ne xuliqal insaanu min ajal doomu Adama dañ ka bind ci yàkkamti doomu Adama daa yàkkamti fi ne boo fi diggoon nit xaalis ne ko demal suba nga ñëw sa tër la lay fëgg waaw sa tër pit koŋ koŋ koŋ ah yaa ne mu ne ko bu ne woon bàyyi sax booba waru mi li nga ñëw suba nga ma waxoon rek doomu aadama daa yàkkamti ci loolu lañ ko bind dafa yàkkamti gis nga aadama gis na fruit yi rek ruu baa ngi continuer di dem egg na ci biir bi eggagul ci tànk yi mu defe mën naa dox mu bëgg a të plongé ji ca fruit ya ñu ne ko aadama yàkkamti nga ndeysaan bi ko yàlla bindee ba pare ba mu taxaw nag yàlla daal di massa ndiggu aadama fa massa ala zahri ci ginnaaw gi fa xaraja min zur min zahrihi zurriyatahu ila yawmi alqiyama yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam na bi yàlla bindee aadama dafa raay ginnaawam gi bépp njabootam daal ciy génn ba yowmal qiyaamati kon lii rek wane na ne doomu aadama bàyyeekul ci golo aadama suuf lañ ko bindee ñun ci kan lañ bàyyeekoo kullukum min aadama wa aadama yéen ñëpp ci suuf ngeen bàyyeekoo aadama ci lan la bàyyeekoo ah ci suuf kon ana ñu ne doomu aadama ci golo la bàyyeekoo kon ñun suñu cosaan aadama la aadama lan mooy cosaanam suuf la ko yàlla bindee aadama dong moom moo am loolu ñeneen ñëpp nag doomi adama lañ yàllaa ngi leen bindi ci ndox mbokk ñëw na ci hadis muslim ibnu yasaar génne ko solo na ko moom it omar ibnu alxataab radiallahu anhu mu laaj yonente bi salallahu alayhi wa na yonente bi salallahu alayhi wa sallam aaya bi wa is axasa rabbuka min bani aadama min zuhurihim min wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qaalu bala شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا لغافلين Omar ibn al-Khattab laaj na Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aaya bi mu ne dégg naa Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ci hadisu Muslim inna allaha xalaqa adam summa masaha ala zahrihi bi yaminihi wastaxraja minhu zurriyatahu yàlla tabaraka wa taala bind na aadama mu daal di raay ginnaawam gi nee na njabootam gi yëpp daal ci génn ñëpp ci aadama lañ bàyyeekoo mais léeg-léeg nga dégg fii ci sunu réew ñuy wax ne am na ñoo xam ne bàyyeeku wuñ ci aadama xatta sax lenn ci ay doomu aadama dañuy wax ne yonent yàlla muhammad bàyyeekuwul ci aadama léeg nga dégg am na xista yu ñuy wax fii ñu ne yonent yàlla Muhammad dafa laaj Jibril maa ak yow ku mag ñeen da ko ah xaw ma ku mag de waaye am na benn biddéew bu doon nekk fii biddéew boobu man yone yooyu yëpp wérul yonent bi keneen ku mën a doon ci adama nga bàyyee ko aadama mooy bàyyu mbindee fi lan lañ tuddee aadama aadama abul bachar aadama mooy bàyyi mbindee fi ñépp ci aadama lañ bàyyeekoo amul keneen xataa yonent yàlla muhammad ci aadama la bàyyeekoo kon amul keneen mais léeg ci tagg ay nit dañuy yëkkati seen daraja ba daal leen di nag tuuti nag daf leen lu bon suñ ne am na ñeneen ñoo xam ne bokkuñ ci aadama kon ñooñu am na yeneen aadama yu fi nekkoon yàlla benn aadama la ñu wax benn aadama dong la yàlla wax ci alxuraan amul beneen loolu moo tax bàyyi bi ñu bàyyi alxuraan moo tax loolu daan ñuy jural fitna daan ñuy jural musiba dañuy bind ci histoire wala ñuy wax leneen loo xamante ne nit ñi dañ koy dégg di wax eskay au lieu ñu weddi ko mais dañuy dégg di wax eskay benn aadama lañu yàlla wax te aadama boobu moom moo jur mbindeef yépp aadama boobu yonent yàlla muhammad ci ay doomam la bokk kon yonent yàlla muhammad jiituwu fi jibril jiituwu fi biddéew jiituwu fi asamaan ci jamono bi ko gisee ci jamono boobu la judd te ba muy juddu mi ngi juddoo ne mbindeef yi di juddoo wulida kama yuladul bashar wa aasha kama aasha al bashar wa maata kama yamuutul bashar walakin afdalul bashar yonent bi dafa judd comme mbindeef ñuy juddoo dañoo am papa am yaay yonent bi dafa am papa am yaay kan mooy papaam ak yaayam abdallah amina dafa dund ni mbindeef yi dunde xiif mar lekk naan nelaw di dem di faj aajoom noonu la dunde am ay soxna am ay doom ñu koy dóor mu koy yëg yaram bi gaañu deret ji di génn muy yëg mettit di yëg coono di yëg bànneex noonu la dunde waaye mu dee ni mbindeef yi dunde deewee waaye nag moo gën ci mbindeef yi est-ce que loolu dafa tekki ne loolu darajaam dafa wàcc dafa wàññeeku abadan moo gën ci mbindeef yi innama ana basarun mislukum waaye loolu lañu gën gënee yuuxa ilayya innama ana basarun mislukum man mbindeef laa mu mel ne yéen waaye nag yuuxa ilayya yàlla may wax man loolu tax loolu muy yàlla di wax ak moom nag loolu la ñu gënee mbokk yi kon ñun ñépp nañu xam ne aadama alayhi mooy sunu baay aadama mooy mbindeef mi yàlla njëkk bind doomu aadama yëpp ñu ngi bàyyeekoo ci aadama amul keneen ku ñëw ci beneen aadama wala keneen ku ku génne feneen amul ku yàlla bind cëppeeloo ko kaw at léeg nga dégg ñu ne am na koo xam ne di ngeen dégg benn baat duma ma waxtur bi nag mais dinaa wax lañ ciy teg almaktuum du ngeen dégg baat boobu almaktuum lu muy tekki xam ngeen enveloppe lettre boo ko bindee ba pare nga kole ko loolu mooy mag maktuum mooy dañ koo kase dañ koo nëbb ci biir am na ñuy wax naan dañ leen a bind dañ leen noon noon dañ leen a nëbb ñu ne bi ñuy juddu ñu ne kooku bu muy juddu dafa indaale yére dafa judd sol yére waaw moom dafa juddu mu ngi sol ndeysaan mu ngi sol cawali cawali garaam bu ak semis àllaaji bi ak mbax ne koppati est-ce que loolu mun naa nekk loolu moom ñeme naa ko wax ci El Hadji parce que tukulóor yi dañ naan Seydou Umar Cheikh El Hadj Umar Fouti bi muy juddu ñu ne fajar la woon fajar yaayam dafa kàbbar ñaari ràkk mu daal di juddu yaayam daal di jóg daal di mottali julli fajar ki walla ñuy wax El Umar de ñu ne ci weeru koor la woon dafa juddu nekk li commencé woor mu jug nit ñi dañ naan mbele sayku yari sayku naan na ñu ne naan na ñu ne naan leen ndox jot na xam nga loolu yëpp lu ko waral ku nekk day tagg sa ñu ne El Hadji Omar xeex na xeex na Badr ɓe mbi o haɓama wolde badiri baba o haɓama wolde badiri omo waɗɗi puccu jarlu alkabere laalaɗe jaborde tekke a bismil yeeb dara amuci dara amuci ñune ñune elage omar xeex na badre badre fan la woon hein kan la baleroon kañ la juddu gis nga yooyu yëpp ko waral mooy ku nekk tagg sa waay looloo tax sax da ñu ne sëñ bi du du nit kii du nit la loolu baaxul ku nekk rek ku baax la nañ ko wàcc place am yonent bi dafa baax dañ ko teg place am yonent bi boo ko bëggee yóbbu sax place yàlla indi nga problème diw dafa baax ku baax la kenn werantewul loolu mais bàyyi ko foofu nag bul ko yóbbu place Muhammad soo ko bëggee yóbbu place Muhammad indi nga problème ku nekk am nga fooyam ku nekk am nga degere xataa yonent yi sax yàlla da leen ëppalante tilka rusul faddalna baaduhum ala baad minhum man kallama allah wa rafaa baaduhum darajat wa atayna isa bna maryamal bayinaat yonent yi sax yemuñ kon nit ñi mënuñoo yem ndax yàlla moo yëkkati daraja yi mais bul yëkkati kenn nag ba koy rombal fu mu yeggut noonu ñu koy waxee ci El nañ koy waxee ci Cheikh Ahmad Bamba lañ koy waxee da nga fi ñu ne alaaji Malick dafa dem Touba dafa dem Màkk fekk ñu tëj bunt yi ñu bañ koo ubbi mu ñaan bunt yi ubbeeku Màkk bunt bunt yi du tëju bañ koy tëj ku koy tëj dangay ngay dégg ñu ne feder bi feder bi xoolal wax foofu yéen ko wax yéen yéen yéen Paba ngeen ne feder bi ngeen ne feder bi mës na mës na jiite Kaaba gi xoolal loolu mu gën a bi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun feder bi ñu ne mës na jiite Kaaba ñu ne Cheikh Omar moo jóge fi dem aji ñëw fekk feder bi nekk ilimaanu Kaaba gi inna lillahi wa mu xool ko mu ne kii feder bu la gars yi daal di koy jàpp ñu xool ñu ne jonguwul ñu ne dëgg la nga gis gars yi ñu ne est-ce que est-ce que nit ñi di yuuxu ah au duwaat euh, ñu ne jonguwul xool loolu nu mu graawee fede jullit yi sàggan ba Faidherbe bu jóge jóge jóge France dem dem Màkka di jiite Kaaba inna lillahi li ma leen di wax nii dañ ko bind de bu la yaakaar ne ay léeb la nii dañ koy wax ci ay kaset nit ñi di ko wax ci mag kii tukulóor yi di yuuxu affaire yu garaaw moo am Sénégal yu garaaw wallahi alazim Kaaba ga Kaaba ga aussi Kaaba gi nee na yaakaar ne même porte kii day ñëw jiite Kaaba ba non inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yal na yàlla jubal loolu sax taxu ñoo jóg dañ leen dem balaa ñu fay yàgg mbokk yi borom bi tabaraka wa taala mu ne laqad xalaqnaakum man yàlla maa leen bind summa sawarnaakum man yàlla ma melal leen formé leen ni ma neexee su ma qul naa lil malaayika sujudu li aadam ma wax malaaka yi sujjóotal leen aadama fa sajadu ñoom ñëpp ndeysaan ñu daal di sujjud illa iblis ba des iblis lam yakum min asaajidin moom iblis mu lànk ndeysaan bokkul ci ñu sujjóot lànk la des bañ a sujjóot waaw borom bi tabaraka wa taala bi bindee aadama adama noonu mu tëddee guddaay bi surtout na ziraa la soixante xasab xam ngeen xasab xasab mooy tàmbale ci conc ñëw ci ay baaraam ci ziraa aadama nag nit ku tol noonu fan ngeen koy gisati ci pour ngeen mën maa dégg maanaam boobu la xam nga loolu lañ doon def mètre ah soixante mètres bu fekkee kon sittu na zira kon soixante kon mètre bi boo ko xaajee lu muy nekk 30 mètres kon aadama 30 mètres la 30 mètres day gis yi léegi benn waaye bu njooree ci ñu ne kii américain la ji ñu ne nii sa jof waay yaa di xool ndax ponkal la dafa njool 30 mètres yaa di ko xolaat ci kaw mu ne nii di ngand di ñëw aadama aadama tey miniser boo ko bëggoon defal lal looy defaat lalu. donc 35 mètres. néeg yi ñaata mètre la. 4 mètres. kon Adama dina tëdd dina tëdd ci néeg <laughs> dina tëdd ci lal. bu ñu koy bon ci uude na ko defaral daal guddaay bi mooy 30 mètres yaatuwaay bi 7 la kon Adama na la tolloon te yonent bi ne ne nit ñi noonu lañ tolloon. te nit ñi bu ñuy dugg àjjana noonu la ñuy tollaat kon aadama nan la tolloon mbokk yi moom ngeen naan xasab xasab ngeen koy wax xasab mooy zira nii te du du ñun du ñi nga xam ne dañoo xiif ba lemu de ñoom aadama nga xam ne sam waay nii ci zira aadama la yonent bi wax zira moom yàlla moom aadama yonent bi ci ay ziraam 30 la ko yàlla bindee guddaay yaatuwaay bi 7 mètres kon aadama nan la tolloon ban mbax ne la doon sol ban daal la doon sol ban te da doon sol yére aadama bi mu wàccee ci kaw suuf toog na ñetti téeméeri ka at xoolul kaw asamaan ndax rus yàlla tabaraka wa taala ah allahu akbar ndax rus yàlla borom bi tabaraka wa taala mu ne man yàlla maa bind ma jox malaaka yi ndigal nañ su nañ leen sujjootal nee na malaaka yëpp daal di mu am benn mbindeef nekk ci biir malaaka yi nekk ci biir mbooloo mi mu ci bokkul mu tudd iblis nekk jinne malaaka yëpp sujjoot moom mu daal di lànk lànk ba ñu sujjoot ndeysaan borom bi tabaraka daal di koy woo qaala ma manaaka alla tasjuda id amartuk yow am la tere sujud ginnaaw man yàlla bi ma la ko sante mu daal di tontu direct qaala ana xayrun minhu mu ne maa ko gën maa ko gën baat bi baat bu ñu war a taxaw la maa ko gën ana xayrun minhu maa ko gën wala nga gën ko parce que man si laa sant moom Fall la sant wala nga gën ko man Mbàkke la sant moom Njaay la sant wala nga gën ko man Ñas laa sant moom lii la sant gis nga wala nga gën ko ñun ay gor lañ moom jaam la kan ma dul jaam ah ana xayrun minhu maa ko gën yoon ñu ne kullukum min aadama wa aadama min turaab loo ko gëne annaasu sawaasiya ka asnaanil must ñëpp a yem comme gur ñu peñee loo ko gëne la ana xayrun minhu iblis mu ne maa ko gën borom bi bàyyiwu ko mu ne ko waaw lan moo tax nga ni yaa ko gën mu ne ko xalaqtanii min naarin wa xalaqtahu min tiin ndax man yaa ngi ma bind ci safara moom yaa ngi ko bind ci suuf ci ban loolu moo tax ñu weex ñi dañ yaakaar ne ñoo gën ñu ñuul ñi ba dañuy jàpp ñu ñuul ñi di leen def ay jaam li tax Afrique mel ni mooy tubaab yi def nañ ñu ay jaam araab yi def ñu ay jaam der bu weex saa yu fekkee der bu ñuul da koy def jaam lu tax parce que dafa jàpp der bu ñuul tekkiwul dara te ñuulaay bi du lenn lu dul continent yu ñu yàlla indi parce que yàlla bi mu bindee mbindee fii noonu suuf si wuutee jaxase boobu yàlla jaxase woon suuf si noonu la yaram yu wuutee borom bi nee na nekk na ci bind bi ma leen bind wuute seeni melokaan ak seeni inna fi ixtilaafi alsinatikum wa alwaanikum nekk na ci wuute gi ma wuutale seen langue yi ak seen melokaan yi ñaata melokaan ñoo am ci àdduna ñeenti melokaan am na nit ñu jaune am na nit ñu weex am na nit ñu xonq am na nit ñu ñuul te ñenn ñu ci nekk continent ba ñuy dund loolu moo tax yàlla wàcce leen foofu gis nga ñun africain ñun doong ñoo mën a dund Afrique boo fi indi woon tubaab wala nga indi fi arab mu def si ay at rek léegi mu. lan moo koy lakk. jant bi jant bi. moo a gis nga ñun loolu moo ñu def nii soo yóbbee nit ku nit ku ñu weex ku ñuul nii boo ko yóbbee léegi Europe mu nekk fu quelque temps rek bu ñëwee fi da ngay gis changé dootul ñuul comme yow. rek yi ñu dund na de xool leen ko mu ngi les les de yu kii kii garaaw na de waaye yow day mu am yaram comme parce que fële noonu la mel kazalika ñu zone ñi kazalika ñu xonq ñi kazalika ñu ñuul ñi ñenn ñu nekk fa ñu nekk xool am na ñoo xam ne fi ñu nekk glace moo fay wàcc 24 heures sur 24 loolu jàpp leen ba ñu zone kon ñenn ñu nekk fa leen yàlla teg yàlla moo xam alaa yaalamu man xalaq wa huwa latiful xabir yàlla mi bind moo xam xoola iblis wax na yàlla kii maa ko gën c'est parce que bind nga ma ci lan ci safara moom nga bind ko tey ci Sénégal da gis fami yi xeer yi dañuy gën a lante soo ñëw ci tukkulóor yi ay am na ñoo xam ne ñun duñ leen may jabar am na ñoo xam ne ñun duñ ci takk ëy boo reppee ba takk ci. am na ñoo xam ne bu ñu ñëwee ci kër yi duñ toog suñu lal yi. bu reppoon ba toog ci bu demee da jël doomu taal sotti ko ci di ko bale bale bale ba ci bitti wala loolu te doomu aadama la mbindeef la comme yow mais gis nga xeet yi gis nga nit ñi fi ñu toll te loolu dal nañu yàlla yërëm dal nañu yàlla jubal ba léegi mu ngi roog a laaj di dem ndeysaan keroog ba Abu Zar waxee Bilal yabnu Sawda yow doomu nit ku ñuul ki Bilal dafa siggi rek dem ba ci yonent bi mu ne ko yaa rasulallah inna aba zarrin yu ayiru nii bi ummi yenent aba zarr day mu may sikkale sama ndey yéen lu la wax mu ne wax na ma yow doomu ku ñuul ki yonent ne woo leen aba zarr ñu woo ko mu ñëw yonent ne ko innaka imruun fika jahiliya abazal baax nga de mais yor nga jikko ceddoo rek abu zar daa teg lexam ci suuf lex bi la teg ci suuf mu ne bilaal kaay bilaal ñëw mu ne jëlal sa tànk nga teg fii sama ta sa nga teg ko fi sama lex ngir mu nekk mbugal pour man tu ma ko waxati ba may faatu gis nga jikko ceddo bi la bëgg a dindi moo tax mu toroxlu jël lexam teg ci suuf mu ne taal yaa bilaal jëlal sa tànk teg ko ci sama lex mu nekk mbugal pour man pour lan pour jikko ceddo boobu yonent bi ne ko innaka imruun fii ko ka jaahiliya ngir ceddo boobu daal di dañ est-ce que ñun kon dañ nañ ci ceddo ñun dañaguñ parce que ba léegi ñu ngi koy wootewu waaw nekk nii ci ñun am na ñoo xam ne loo gëm-gëm sunna bu ñu la ne woon dañ lay may benn jigéen bu bokk ci famille sàngam nga ni bàyyi dañ ko bàyyi dañ ko bàyyi dañu koy bàyyi nga ne damay am problème rek te ñun ay jullit lañ ba léegi am nañ ay jaam li iblis waxoon ana xayrun minhu maa ko gën lu tax mu ne xalaqtani min naarin bind nga ma ci safara wa xalaqtahu min tiin iblis fii lan la def xiyaas la def dafa xalaat rek ci xel mi ko yàlla may comme kii ban lañ ko bindee suuf dafa xeeñ dafa tooyoon am xet weer ko ba mu wow man safara la safara dëgg-dëgg moo gën loolu kon kii maa ko gën lan moo tax ma koy sujootal def qiyaas wala nañ def ko gën dafa def xiyaas natt kii nii la kii lii la lii lii la kon rek kon man maa ko gën ay yomb na di waaye xam nga lan la fàtte baat bi yàlla wax is amartuka man yàlla maa la jox ndigal nit di ko ëpp capacité fi mu nekk nii am na ci réew mi ñoo xam ne ñoo raw premier ministre wala ñoo raw commissaire alay si kazaali mais bu ñu duggee biiru commissaire dañ naan zëcc taxaw ne nii commissaire ñëw nekk benn booy bu ndaw am fanweeri at ñoom am nañ cinquante ans instant yi sax nga gis waa dem tribunal benn pas dem tribunal ni nii juge bi nekk benn xale bu tuuti di simi mbax ne nga dégg ñu ne fii la mbax ne nekke fii mbax ne benn la loolu <laughs> cirque la wala du cirque ñëpp simbi seen mbax ne li waa ji doon wax ne yéen a mën a bokkaale bu ngeen duggee ci jàkk du ngeen simmi mbax ne ngeen dugg tribunal simmi mbax ne te bu ngeen duggee jàkk kenn du simmi mbax ne wala mu jógee tribunal simmi mbax ne ñu ne comme ñu ne waajaa ngi ñëw ñëpp jóg taxaw ba mu toog ñu fëgg ñëpp toog loolu war nañ ko seetaat de lan lañ yàlla jubal iblis mu ne ana xayrun minhu maa ko gën lu tax mu ne danga maa bind ci safara moom nga bind ko ci ban ndeysaan borom bi tabaraka wa mu nekk qaala fahbit minha fa maa yakunu laka an tatakabbara fiha génnal daq naa la ndax yow danga ngand ngandulu dangaa rii moo tax yàlla bu la santee nga bañ ak noo mënta toll am nga problème def leen nga lànk yow yaag iblis yéen a yem iblis yàlla da koo sant mu bañ te borom xam-xam yi wax nañ iblis ku baax la woon am na ci ñu dem ñu ne sebre vrai koo def nii suuf si julli na ko wax nañ turam première asamaan deuxième troisième quatrième cinquième ba sixième septième asamaan lañ ne la tudd iblis iblis lu muy tekki mooy borom mujj ku bon koo xam ne fi mu mujj baaxul ñaata bàkkaar la iblis am benn bàkkaar la iblis am nañ yem foofu maa ñëw ci aadama benn bàkkaar kese la iblis am mooy lan xoolal li mu jaamu yàlla yépp xëy yàlla ne ko defal nangam mu lànk loolu mu defoon lépp yàqu na allahu akbar mu tax mooy li mu jaamu yàlla yépp mu mag ba fi ko yàlla tegoon jël ko boole ko ak malaaka muy naaw di ànd ak ñoom ba mu dem sax ba yaakaar ne moom malaaka la ngay xoolal tey bi ko yàlla joxe ndigal ne ko defal mu bañ yàqule na lan la ko yàlla wax génnal faxruj minha acca génnal ci biti lu tax génnal fa maa yakunu laka an tatakabbara fiha fii waroo fee rëy rëyu waroo fee fëgg dënn waroo fee ngand ngandlu di fa wone ay ngëneel yoo am ak yoo amul faxruj fa innaka min as génnal ndax yow ku tuuti nga tey ndeysaan mbokk yi xool leen iblis tey ku tuuti la ci kanamu yàlla ku tuuti la ci kanamu malaaka yi lu tax lan moo tax mu tuuti tey ci kanamu malaaka yi lu tax mu tuuti ci kanamu borom bi parce que yàlla jox na ko ndigal ne ko defal mu bañ yàlla ne ko tey ku tuuti nga li nga doon ngand yëpp sa grade yi wàcc na qaala mu ne ko anzirni ila yawmi yubaasun yàlla maa ngi lay ñaan ba bisub dekki qaala innaka min al munzarin naa la ko may rek mu daal di tëb moom iblis qaala mu ne fa bima axwaytanii la aqudanna lahum sirataka almustaqim thumma la aatiyannahum min bayni aydihim wa min xalfihim waa an aymanihim wa an shamailihim fala tajid aksarahum sakirin allahu akbar iblis mu ne yàlla danaa toog ci diggu yoon boobu ñu naan siraatal mustaqim sa yoon bu jub boobu laa naan faax toog ginnaaw ba mu ñaanee yàlla ne ko yàlla may ma ma bañ a dee ba bisu dékki yàlla mu ne ko may naa la ko iblis ne yàlla danaa toog ci yoon bu jub bi dafa waat laam bi laamul xasam la nuun bi nuunu lan la nunu tawkiid di ko dëgëral la aqudanna lahum giñ naa ci sa màggaay yow yàlla dinaa toog ci diggu yoon bi nga bëgg gaa yi jaar bu ci toogoon rek sax dina doy toog bu ci toogoon nii rek toog bi rek sax garaawul waaye yëpp déglu leen lu mu wax mu ne summa la aatiyannahum dinaa leen dikke ni bayni aydihim dinaa ñëw seen kanam wa min xalfihim dinaa ñëw seen ginnaaw wa an aymaanihim dinaa ñëw ndeyjoor wa an shamaailihim dinaa ñëw càmmoñ dinaa ñëw ci kanam ñëw ci ginnaaw ñëw ndeyjoor ñëw càmmoñ ñii ñu ëpp ci ñoom doo leen fekk ñu lay sant doo leen fekk yoon bi nga bëgg ñu jaar ñu ciy jaar lu tax ba fa toogee lan la fa toogee di dévier yonent bi saa salaam ba muy firi siraatal mustaqim dafa def benn yoon bu rëdd bu jub mu def ci ay ñalla ñalla ci côté bi mu def nii mu ne yoon yi bi mooy yoonu yàlla bu jub bi yoon yi benn bu ci nekk seytaane mu ngi ci toog di woote suñu sëriñ bi ñu doon tafsiral mu ne seytaane dafa ñëw ba ci diggu yoon bi daa di def ay loolu ñuy samp fii jour vendredi nu mu tudd parasol yu mag yooyu mu daal di ub ah bâche yi bâche parasol yi mu daal di def yu mel noonu daal ci teg ay chaise indi ay ay frigo indi ay kopp yu luxe ay kaas yu rafet mu teg indi ay chaise yu garaaw comme gaa yi yooyu ngeen di gis tefesu géej mu ne Iblis toog boo doxee ba sonn rek nga ñëw mu ne la waaw foo jëm nga ni ah man siraatal mustaqim maa ngi jëm aljanna mu ne la fii waaw waaw toogal noppalu jox la musuwaar ne la fompul nga fomp di ñaq ba pare mu jox la kaas zi nga naan affaire yi sedd buy neex affaire dugg ci yaram yi nga nii nii mu jox la beneen kaas nga naan mu jox la beneen kaas xam nga sa biir fees na mu ne la nii moo gën a gaaw ah, mu ne wallahi nii moo a gaaw rek <laughs> ngir koy yàlla nga fi yàgg waay jërëjëf rek daal jaar ne keneen ñëw mu def ko noonu fekk ñëpp nii lañu waroon jaar moom ku ñëw rek mu ne nii moo gën a gaaw ku ñëw rek jaar nii toog rek yor ay kaasu ziyam gars yi ñoo rek mu leen di jox ñuy naan di di jubal ku ñaan rek mu ne la nii la gars yi kenn du jaar nii noonu la def moo tax mu ne dinaa ñëwee côté yëpp fenn la bàyyi mooy fan ci lu tax parce que borom bi tabaraka wa taala mu ngi ci kaw mbiram yëpp ci kaw la ne diggante jaam bi ak yàlla dara waru fee dox comme yow kenn téyewu la fi fii côté yi lañ wax côté yi kon loo tere yéeg lan moo la tere fi nga xam ne moom nekk fa loo teree dem ah foofu lan moo ñu teree yéeg lan moo ñu jàpp tëju suñu ndeyjoor suñu càmmoñ suñu kanam suñu ginnaaw foofu ma am problème mais suñu kaw amul problème foofu la buum ji nekk buum gi nekk suñu digganteeg borom bi mu mel ni xar xar boo ko yóbbee ci frontière bañ mu dugg ci toolu jàmbur noo koy def da koy takk ci benn weñ wala bant lan même takk bi nga ko takk gis nga ci daaira bi nga bëgg mu nekk rek foofu lay nekk du génn rooroo bi nga bëgg mu nekk foofu la xar mi di nekk di wër du mës a dugg frontière u jàmbur ñun dafa am benn buum bu ñu jokkaleeg yàlla mooy nii suñu xullee ba buum boobu dagg nag mooy am nañ problème dootuñu dem te kenn terewuñu yéeg ku yéegul rek ci yow la ku yéegul ci yow ku eggul ci yàlla rek yow la du kenn kenn gàllankooru la kenn jàpp la lu dul yow yaa ay effort ndeysaan mbokk yi iblis fii la mujj ak ñun mooy leen di ñu dévier dinaa ñëw ndeyjoor dinaa ñëw càmmoñ dinaa ñëw ci kanam dinaa ñëw ci ginnaaw yow yàlla li ëpp ci jaam yi doo fekk ñu lay sant waaye borom bi moom it daan ne ko yow iblis qaala faxruj yaa ne ko génnal minha ci biir àjjana mazuman madhura laman ittabaaka minhum la am la anna jahannama minkum ajmain giñ naa ci sama màggaay man yàlla yow iblis génnal dàq naa la ngay ku ñu ŋàññ ngay ku ñu soreel yërmande giñ naa ci sama màggaay képp ku la topp ci mbindeef yii ci jaam yàlla yii képp ku la topp danaa ko dugal safara yàgg moom danaa feesal safara ba mu fees ci mbindeef yi nga xam ne dañoo topp iblis kon lii rek war na tax ñu dëpp xam ne iblis fu mu bëgguñu ñu jaar suñ fa jaaree fan la ñuy mujje mooy biir jahannama ñu ak moom borom bi tabaraka wa taala mu ne wa is qulna lil malaikati isjudu li aadama fa sajadu illa iblis ci beneen aaya borom bi ne fàttaliku leen ba ma bindee malaaka yi malaaka yi ba ñuy wax ma leen di wax ne sujjootal leen aadama ñu daal di sujjoot ñoom ñëpp bam des iblis kaala a asjudu li ma xalaqtu tiinan ndax man damay sujjoot loo xam ne borom bi tabaraka wa def ko bind ci ban ci ban duma ko def borom bi tabaraka wa taala ne ko loolu ci hadis borom bi taba yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko doon nettali iblis di ko wax naan yàlla man duma sujjóot loo xam ne ban lañ ko bindee man yàlla tabaarak yow yàlla tabaraka wa yaa ko bind ban man duma ko sujjóotal te kii soo ma bàyyi ak moom ak njabootam danaa ci tiqtal lu bare bare bare bare bare bare bare bare lu dul lu néew ci ñoom tiqtal googu tey mooy li nga xam ne moom la iblis di def yàlla bind ñu bëgg ñu jaar ci salaatal mustaqim iblis ñëw di ñu tiqatal ci ay bakkaar lii lépp nag ma nga amee woon ca pays sal sell ya ca aljanna fa yàlla tabaraka wa taala binde woon aadama waaye li yëpp mu nga amoon ci benn bis boobu nga xam ne mooy bisab àjjuma yàlla woo aadama ni ko gis nga waa yi sa noon la na nga ko moytandiku yow yaag sa njaboot ndax gis nga gàllankoor yi nga xam ne moom la lànk su jootal bi mu la su jootal kon na nga ko moytandiku yow yaag sa njaboot waaye est-ce ndénkaane gi yàlla dénk aadama ne ko bàyyil xel mbindeef mii yow yaat sa njaboot aadama dégg na ko lii lépp mu ngi amee ci bis àjjuma boobu ci ngoon yàlla dàq na iblis gestu na aadama daal di koy dëkkal aljanna waaye borom bi tabaraka wa bi mu dëkkalee aadama aljanna aadama nekk fa moom kenn yàlla bàyyi na ko ba muy nelaw yàlla xarfaaru góosam daal di ko fay génneel jigéen ju tudd xawwa moom aadama bi mu yeewoo mu gis ku jigéen ki malaaka yi dañ ko posé question ne ko kii nu tudd mu ne xawaa la tudd ñu ne ko lu tax nga wax loolu mu ne parce que dañ kaa bind ci luy dund dañ koo jële ci luy dund xawaa mooy lu ñu jële ci luy dund loolu la xawaa di tekki ndeysaan yàlla daal di koy may mu nekk soxnaam foofu tamit li ñuy wax ne aadama bi mu yeewoo dafa gis a xawaa ci wetam mu bugg ko laal malaaka yi ne ko téel sa loxo mu ne lu tax sama soxna la ñu ne ko waaye kenn mayeegu la ko mu ne ah lan laay joxe pour ñu may ma ko ñu ne ko dangay joxe can bi mu ne can bi lan la ñu ne ko salaatu ala nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam foo nga julli ci yonent bi loolu tamit nekkul lu nekk ci téere yi lu wér yàlla daal bind na xawaa may na ko aadama dëkk na loolu ne ñoom ñaar aljanna wax na ko uskun anta wa zawjuka aljanna wa kula minha ragadan haysu chituma wala taqraba hadihi shajara takuna min azalimin adama mu ne ah, mu ko demal nga jël sa soxna yaag xawa ngeen dëkk biir aljanna lekk la nu leen neex waaye ngalawaay am na fa benn garab garab gii bu leen ko jege uskun anta wa zawjukal janna dëkkal yow yàgg sa soxna loolu tawkiid la nit kay bo boo ko ne boo ko boo ko tabaxalee kër ba pare nga ne ko demal nga dëkk <laughs> ñan lay yóbbaale ak kan ku ko neex mu waa waaye yàlla na ko yow anta wa zawjukal janna uskun doyoon na rek mais mu ne ko anta yamu ci mu ne wa zawjukal janna dëkkal yow yaag sa soxna aljanna aljanna jooji it borom xam-xam yi naan suuf la nekkoon ñaan kaw asamaan ñi naan bu bu ñu yàlla dig waaye lu wér mooy aljanna ji ñu war a delluwaat te yàlla dig ñu ko aljanna jooju la loolooy li wér effort moo ñu fay delloo effort lan moo ñu fay delloo mooy jaamu yàlla waaye ajana jooju yàlla dugal aadama da ko ne yaataa yimbeel defal lu la neex fii doo fi xiif doo fi mar doo fi toskare lekkal lépp waaye garab gi bul ko laal borom xam-xam yi nee nañ doomu aadama dafa bañ lu ko umb doomu aadama daa bañ lu ko umb gis nga xale yu ndaw yi léegi ci reer lañ toll bu ñu joloon benn reer ci kaw waañ wa ñu ne ko yóbbulal ñoom ustaas ñu ub ko ñu ne ko bul ko ubbi de maadaama wax nga ko bul ko ubbi bu jàddee gisul kenn dina ko ubbi di xool lii lu mu doomu aadama moom saa yoo ko teree dina dina lal même bu doon mag soo ko ne liibul ko laal wala lii bul ko jege wala lii bul ko xool di nga gis muy xool xool dafa am benn waay bu amoon doom doom ji daa sob réew gan gu mu am doom ji sonal ko mu war a am benn gan nag mu ne doom ji gis nga tey gan gi bu ñëwee boo ko xoolee rek dama lay rey xool laa wax rek waxuma ngay wax ak moom waxuma nga fekkoy saal bi naan may may ma juróom dama lay rey léegi nag gan gi ñëw nekk muuma naan ni yaay yaay ji dem ci waañ bi jëli ndox xale bi daan ne nii gan gi sa yaay dalaa tere wax bi nga fi ñëw sa yaay dalaa tere wax loolu ah non lu wax gan gi bi nga fii ñëw sa yaay def leen boo waxee dalay rey ah sa yaay dalaa tere wax dafa boo waxee dalay rey lu tax parce que moom dañ ko tere wax ba pare kii ñëw nag léegi nekk muuma mënul wax mu yaakaar ne niñ ko teree moom mu laal gan gi noonu la yaayu gan gi waxee gan gi bis boo fa demee bu waxee dañ lay moo tax mu def sa yaay dafa wax boo waxee da rey doomu aadama soo ko teree rek <laughs> li nga ko tere da koy def doomu aadama moo mel noonu xoolal aadama rek lu tal ne aljanna ñu ne la lekk lépp lu la neex mais ngal garab gi bul ko laal kuñ kuñ dugal ci benn frigo ñu ne frigo bi laala lépp ngal bul laal bu butéel bii wala restaurant bi lekkal lépp mais bu lekk façon lekk bii bii rek mais leneen loo bëgg lekkal waa daal dem romb liñ ko wax lépp dem ba ci biñ ko tere daal di foo ma xool Iblis moo leen nax nax bu garaaw Iblis moo bàyyi ba ñuy ba ñuy doxantu Iblis ñëw la ngaamu ci benn garab bokk na ci li leen nax ñoom dañu yaakaaroon ne Iblis. mi yàlla doon wax leen ne moytu leen kii iblis ba muy ñëw beneen melokaan lañu indi ñoom gis ñu melokaan bi leen yàlla waxoon ne kii la dafa soppeeku ñenn ñi boroom xam-xam yenn ñu ne dafa nekk jànn ñëw laxasu ci garab gi di wax ak ñoom xamuñu ne iblis la yamu ci loolu soppeeku bi mu soppeeku waaye dafa waat wa qaasama lahuma dafa giñ mu ne leen inni lakuma min annasihin giñ naa ci màggaayu yàlla man dama leen di laaya biir léeg-léeg nit di la nax day waat wallahi alazim fekk ko dara du ci dëgg xoolal gars yi jaaykat yi suñu jaaykat yi billahi best la best fekk du dëgg fekk ngandum foo la wallahi maa ngi ko jënde ñaari junni fekk du moo tax yonent bi ne jaaykat jaaykat jaaykat buy waat safara rek la jëm bépp jaaykat buy waat safara la jëm bépp trian day waat koo gis muy waat waat yu bëri booy ba nga mooy tëndit ko iblis noonu la def waat waatal aadama ak awa ñoom yaakaaroon nañ ne nit du waat ci màggaayu yàlla di fenn yemu ci loolu mu ne leen gis nga yàlla dafa xam ne garab gi bu ngeen ko lekkee da ngeen di nekk ay immortel xam ngeen immortel ah mooy la takuna min alxaalidin minal xaalidayni da ngeen nekk ñaari immortel dootu leen dee yamu ci loolu mu leen da ngeen di nekk ay malaaka da ngeen di naaw ànd ak malaaka yi gis nga lim leen wax lim bëri daf leen waatan bokk na ci lim leen naxee dafa soppeeku waatal leen ak lan ah dig leen ne leen da ngeen di nekk immortel ba pare ne leen encore da ngeen di nekk ay malaaka lii lépp ko la ah ba pare mu ne leen waaw allahu akbar mu ne da ngeen di nekk da ngeen di nekk ay buur buur boo xam ne kenn du la fol yàlla na sunu bi kuñ ko ne woon nangam bi boo ko defee da fii ngay dee élection du la fi jële moo tax gis nga lu ëpp ci président yi ay criminel la da gis ñuy naan dëru nit deretu nit ñenn ñi di takk ay téere yoo xam ne yaxu nit la pour lan pour sax ci nguur gi rek moo tax nga gis am na ci ñoo xam ne dañuy sol seen mbax ne duñ ko simmi ñenn ñi dañu yor ay kaan duñ ko bàyyi ñenn ñi rek lu ku nekk ñenn ñi takk ay bàgg yoo xam ne lu tax est-ce que bëgg a dee ci nguur bi te lépp doomu aadama daf ko bëgg doomu aadama dafa bëgg bañ a dee xam ngeen Ibou Sakho ah ku mënoon gàmm la dal na ko yàlla yërëm waxtu wi waaye aywa kon incha allah mbokk yi ñu dagg ko fii ba beneen yoon asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.